Hadj Babacar maa ngi lay fay. tey ñu ñëw fekk la fii géej nga toog ak waa Bawal sa yaram. nelu séeréer bi bu leen wax la ñëpp ñëw lan moo waral jotaay bi. le douze. ku ne na nga di say supporter feetu séeréer bi la douze ñu dëjoon na le ku ne boo leen nii sant yàlla maanaam ànd ci lan da ngeen di ànd def benn wala ànd bi bu ne day na seeg wala non maanaam récépissé kenn ku ne yaa ngi sa booy xool woote bi tey maanaam mbër moo ci gagné exemple problème mu supporter yi ñu mobilisé loolu baax na ne yaa ngi ci. loolu la ak sa taal bi ñu xam. yaa koy liggéey yéen ñi bokkul ci kii bi kaay def leen ñu ko wax waaw sant bi gërëm ñëpp di wax image ah tey jii kaay nangu leen ñaan nangu leen ñaan école de base image kuy di waaw nangu leen ñaan réunion am na di tey bu ma limee rek problème giri giri nangu leen ñaan affaire bu neex la daal tey ñëpp ne ci ginnaaw tamit sant yàlla yow en tant que leader tey yéen président ban parce que say xel say raas mu ñëwee mais li lii lañ bëgg bi dimanche école Sandakour si 15 heures. yow da ngaa weer. wéet ana kan. wéet bi ma dem yow ana kan yow yaa kan yow yaa kan sax yow da waaye dina da lay bu combat amee supporter yi parce que li ñuy mobiliser dafa bëri mais day manqué organisation. très bien loolu mooy problème ñu dañ ko toog fii ñu toog fii loolu nag lañ bëgg mu dañ. Tafa fi may jeexal ak yow Tafa ci lu mu nekk ana mbër yi ana adversaire yi. waaw bon nga euh, maa pare bu baax mën naa mbër mu pare woon saison bi mën naa yaakaar ne daa bëri saison parce que mën naa ay ñett ñeent ay promoteur yu ma contacté na ñi ko def bëri na du man rek. yow rek daal mën naa ne sant kontaan ci yow. jaajëf waaw ba tey taal bu la neexee comme niñ ko xamee rek ñoom ñoo rëdd ñoom ñi nga gis ñooy bët si bawal yi Sawru Fall mi bool bool la di mënaan sa bi Bada Jon Mbay Cuun Baye Bada Sung ak Mbay Ndewaan ak Balla Seen ah voilà kon noonu la demee ak village waaw sama xarit bi <laughs> ak Elimane Sarr jonn lan moo waral initiative bi ngeen def ko tey ñu ko ñëwee di leen écrit yi da ngeen bëgg mu nekk benn écrit wala lu waral daal tax jëf initiative bi Babacar maa lay nuyu di nuyu Bawol gépp di sant Bawol gépp d' abord initiative bi balaa dara xew jàppale am la jàppale promoteurs yi parce que waruñu noo gën a gore gën a gore borom écrit yi parce que man ñam naa teg lam teg naa lam parce que Balla Gaye njëkk a teg premier combat teg nañu fi ay Baye Mandione nag ay Modou Awa ay Moussa Diouf ci bu ndafa dernier combat am ñoo ko ñoo ko teg bi mu bàyyee bëre yaakaar naa kooku am na loo xam ci wàllu promoteur lambit yàgg na ma ànd ak ki di depuis ba may nekk Bawol nekk xale bu tuuti di am ay 10 te mosuma jóg ci làmb yaakaar naa côté boobu am na lu ñu ci xam xam di ànd ak it wax dëgg ménagères yi di ñaanal sàkk jën nga xamante ne nii bu dee lambi Dakar wax dëgg yàlla bu mel ni lu bëri moo ko ci def parce que moo am place ñëw ñu fay signé contrat yi waaw ma koy ñëpp yaakaar naa loolu lépp bu dee euh, tey euh, yi nekk ci làmb yëpp daal poste yi nekk ci làmb ak activité yëpp yaakaar naa bu ne ci jaar jaar nga ci xam nag coonooy promoteur yi parce que xëj na làmb dem na boo xëj na sponsor yi xaw dëgg dëgër ci ñoom te du suñuy nawle ah bu nu tegee suñuy mber ba dajoon boo xoolee année bu ne nekkul financier waaye promoteur yi dina ko may gat gat lu ko cinquante combat wala quatre-vingt boo ci cent yoo xam ne biir bawal lay dugg wax dëgg yàlla dañu leen a war a delloo njukkal pour kayit supporters yi ñu dajale bawal gépp ñuy supporter parce que bu ñu toogee juróomi écrit ah écrit bu ne téeméeri mbër nekk fa mbër mu ne am am benn fan si club boo xam ne téeméeri nit a nga fa it maanaam amul sens il faut ñu boole fan si club yi pour ñu dajee bokk benn kàddu nga xam ne képp kuy bëre ñu mobiliser wu dem sa kër jën billet yi ñëw am masse wax dëgg yàlla comme ni waa a gën di def lu si tey bëre ñun loolu la ñu soxla parce que bawol lu ne nga fa bawol kenn du leen ëpp doole ci ngor nit du leen ëpp jom te it yor nañu njëgu billet ñoom liggéey ci naa leen jëndal ñu billet parce que bu fekkee ni sa mbër nit day jóge fee ab mairie wala dara mën koo jox un million yow mi nga xam ne da ngay supporter war ngaa mën a dikk seetaan fukki combat dagg billet mën ci sa mbër nag wax dëgg war na nañu ko mën te bu ñu booloo lépp day at loolu tax ñu boole tey supporters yi parce que supporters yi moo nu tax a jóg boole supporters yi waaye supporters yi bu mbër yi ànd du ñu mën a ànd loolu tax ñu boole mbër yëpp muy écrit bu ñaan boo gisee ngel jona ngi fi ak Libidor ak seen entraîneur ak seen euh, président ñoom euh, Biram waxtaan nañu ci parce que lu nu dox la loo xam ne un naa ngi ñu di ci liggéey mais looy liggéey da nga koy appliquer. mais nag bu fekkee ni da nga bëgg a appliquer it boo yàkkamtee di nga am ñoo fàtte. te xëy na kon du nekk loo xamante ni lu réussir la. leneen lii it man dama leen sant parce que. xëj na ku ne mënoon nga koo def waaye ma it damaa natt sama bopp ci bawol nga xamante nii muy ménagère ba muy écrit bu ne ciig ba nu koy sos ca laa bopp te mosuma arrière mosuma démissionné ñëpp la ñu àndat yaakaar naa tey bu ñu demee boo ñu liggéey benn liggéey bi nga xamante nii ak nañu fen fi il faut ñu regroupé wu nag nga xam ne dañoo war a génne mbër yi nga xamante ne ñu ngi taxaw di entraîner am seen doole ñu profité nag wax dëgg yàlla jàppale leen booloo pour que supporters yi booloo pour ñu jàppale mbir yi pour ñu dem loolu moo nekk daal loolu moo nekkoon mbir mi tey daal mbir mi tey waaw am na leneen nag lu des loo xamante nii léegi dañu ko doon lancé mbir yi pour wax ak ñoom léegi rendez-vous bi dëgg dëgg dëgg mhm. ah, la douze la stade Iba Mar la douze bi di ñëw waaw ah. la douze bi di ñëw lu ngeen fay def waaw benn bépp cosaan boo xamante ne nii am na ci Bawol bépp cosaan boo xam ne cosaanu Sénégal la bépp cosaan boo xamante ne nii cosaanu làmp la am na ci muy cosaanu euh, tëgg way fecc kirtir cosaan aada tanbeer bàkku lépp a ngi ci ak ay concours bak ñu nag yemalewuñu ko ci bawol bu dee ngel bi noonu eh, eh, manifestation bi maanaam yemalewuñu ko ci bawol parce que bépp nit koo xamante ni yaa ngi ci làmb ñu ngi la ciy invité muy promoteur yi ñu ngi jiital Pa Abdou Fall boo ko waxee rek wax nga association de promoteur waaye dinañu cité it suñu promoteurs yi Bawol que danoo wax dëgg yàlla danoo dem ci ñun ba mu jeex tàkk sacrifier seen alal ñu xam ne ñu ci bëri sax dem nañu bay bëgg a am problème ngir bawol waaw ñu cité ci ku mel ni Assane Ndiaye Fallou Ndiaye Dieye euh, Prési Kanji falu fay vraiment waruñu noo gën a gore parce que Bawol sa frontière bi ñoom dañu leen a war a jàppale ba nu xam ne jàpp nañu jàppale nañu leen lépp lu ñu xamit ñun ñu ngi koy def pour structure yi dox waaw jon daal loolu moo taxoon ñu taxaw ci ñu taxaw ci loolu di gërëmit nag waa nekk samay xarit yi nga xamante ne nii ñu ngi ci làmb bu ci mel ni Gaston Mbaye parce que kooku mën naa ne ci ci ci ci ndakaaru tey moom ak xaadim sam ñoo fi nekk samay kilifa parce que lépp lu ma dugg ñu nga ca problème bu ma am seen problème la ñu koy def ci la ñuy taxaw dama leen di sant di leen gërëm di gërëm sama xarit Assis Ndiaye ak waa Kerpa Allé ñëpp ak promoteurs yi fi nekk yëpp loolu daal moo nekk. moo euh, tey léegi nag yow. yeneen laaj yoo am nag ñu soog a jëflante. waaw waaw laaj yi kay fi mu ne boo xoolee mbir mi moom li ci am solo daa mel ni tënk nga ko ah. parce que maanaam boo xoolee mbir mi. li ci am initiative bi li ko waral tënk nga ko li nga xam ne tamit moom ngeen war a def pour le ci mois de juillet bi le nga ko wax ah loolu lépp tënk nga ko yaakaar naa sa bi moom defe naa ànd boobu lu ñuy rafetlu lay doon tamit ay nit a ànd dañu ci éviter champion yi fi nekk yëpp parce que xëy na mën nañu ne roi des arènes dafa am combat mook Modou Lo mën nañu ne Boy Niang dafa am combat mook Lac de Guiers kon mën nañoo citer rek éviter ku mel ni Balla Gaye numéro 2 waaw sama xarit la moom xam na ma xam bu ko fa kenn jiitu stade Iba Mar nanu it ku mel ni Gris Bordeaux yaakaar naa man maa nekkoon supporter numéro un waaw naa nga monte lii xam nga yooyu <laughs> yëpp sama xarit lanu évité ku mel ni guy gi parce que guy gi it sama waay la sama xarit la bàyyi ma njoon it bu mu tardé parce que bàyyi ma njoon xam na suñu diggante mook Bombardier parce que man wax dëgg yàlla làmb laay dund mhm. parce que làmb moom bu sa loxo settee mhm. di nga mën ànd ak ñëpp parce que man yëpp mber bul ma neex mën naa tet fi yow parce que ba ma juddoo ba léegi mosuma wutal mber galaaj mosuma laal galaaju mbër mosuma lijjanti galaaj ci lam parce que man gémmuma ko man la ma war a liggéey rek laay liggéey ñeneen ñi liggéey la ñu war a liggéey mber mi dem ak seen i bokk parce que boo boogee an lam boo ci boogee nekkit il faut nga setal sa loxo man daal mber yooyu ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm ak maa ngi woo it Ama Baldé parce que kenn mën de wax ci lam ak sita parce que nag mën nañoo fecc mën a bàkku mm. ñun li ñu intéressé mooy rek nga waa làmb yëpp mooy li ñu li intéressé Bada Dione mooy lu yokk làmb parce que lii ma def tey damaa bëgg écrit yëpp it roy ci pour que ñu jàppale promoteurs yi jàppale làmb mhm. parce que promoteurs yi waruñu noo gën a gore daal mhm. mbir yi yeeg écrit yëpp war na noo organiser wu pour ku ne ci xool ni ngay defewaat pour ñu defar làmb di éviter it Matar Ba ministère des sports parce que moom mooy kilifa ak làmb ji ak Doudou Diagne président amateur parce que ak euh, les jeunes amateurs ak groupe baax parce que ñoo ñëpp ñoo nekk ci làmb il faut ñu woo leen ñoom ñëpp